waaw tey li tax ñu wootee parce que dañoo euh, gis lu ñu jaaxal lu ñu naqari trop muy ay xupp ak i xoqatal yu jóge feneen di ñëw si ku nga xamee ne dafa taxaw di laaj ay àqam ak i ngir ñu respecté ko. Euh, président de la jeunesse bi nekk fii nga xam ne moom mooy jiite sa jeunesse bi nekk ci commune bu Ndioumane bi. Euh, depuis ay quelques années ngi nii. mu koy doxal pratiquement trois ans ngi nii ñetti at si ngi nii euh, mu maanaam que mu ngi jot ay fonds budget bi boo xamee ne lu jëm si wàllu ndaw ñi la léegi bi loolu amee mu koy jot di ko jot trois ans ngi nii si ginnaaw mais amul dara lu nga xamee ne organiser na ko lu jëm si wàllu ndaw ñi pour cela euh, ñenn si ndaw ñi jóg euh, ngir dox loolu Euh, seen àq seen yelef jooju ak seen xaalis boobu ñu xam fan lay dugg bu fekkee euh, wax ak laaj li nga xamee ne yaa moom moo tax ñu xoqtal ay nit booy boo seen plainte yooyu ñu bind si lu bëree baree bëri parce que duñ dañ ma di wax tant que liñ bëgg a leeral leeralu ko daa war a leer de dafa war a leer ah, muy xaalis boobu noonu que depuis euh, pratiquement trois ans yi nii amul dara lu nga xamee ne que moom lañ si def lu jëm si wàllum ndaw ñi loolu la ndaw ñi di maanaam réclamer fan la dugg bu bu fekkee nag da ko lekk booy boobu mu wax rek waaye neuf cent mille depuis trois ans ngi ni nawetaan amut xaalis bi fan la ko dugal parce que euh, budget bi moom moo kon ni di génn léegi xaalis bi kon fan la ko dugal loolu lañ koy laaj loolu lañ koy demande c'est très facile loolu yomb na euh, monsieur le maire lu Dia euh, yow la ñuy waxal parce que mënoo ñëw jiite euh, pendant plus de dix ans treize ans quatorze ans ci ren amoo compétence pour def fi dara lu nga xam ne nit ñi mën nañ teg teg seen loxo. tey boo ñëwee nag euh, di laajaat beneen mandat wax dëgg yàlla ruus nañ la te kilifa nga kilifa nag ndab moom kenn du ko ñedd dañoo bëgg nga sepp sa loxo bala ñoo yëlëb sa loxo. suñu suñu xaalisu nawetaan daal moom laaj samedi bi passé sëñ Modou moom sëñ Bara Dolly dafa organisé woon ay ay tournois ñu doon finaalu samedi bi passé après ci final bi noonu ci laa profité ma waxaale suñ maanaam ñun ñun xale ñun jeunesse bi daal ñu takku jóg taxaw parce que du laaj suñu fu mu dugg parce que mën na ne trois ans mi ngi nii organisé wu nawetaan mënoo ne yow xaalis bi génnul te nga commencé organisé na nawetaan ba fubal premier tour yi ba ba toll ci quart de finale yi nawetaan yi am problème nga aj affaire yi ba léegi nii waxatuñ dara suñ ko woo réunion du génn wala bu ñëwee ñi lay woo wooñee ñi du ñëw wax réunion mënu fa am te ñun dañoo bëgg mu leer suñu xaalis te te ñun dañoo nekk nit ñoo xamante ne bii ay ndaw yoo xam ne dañoo takku jóg taxaw bëgg xam suñ commune li fi nekk ñu ko lijjanti toola jamono ñun daw ko lijjanti de mais léegi mais léegi ñun këfuñ ci réewuñ ci tey duñ ragal commencement wala nu wax rek avant may wax dana man dama ne man li may wax régluma ci dama koy wax ñëpp dégg di ay junni junni pelante fii jox ko jeunesse bi yëpp parce que ñun moom li nekk duñ ci amuñ ah. duñ ci daw salayandeer ah, amul loolu maa ngi wax ne ci turu jeunesse bi nekk ci commune bi yëpp maire man woo naa ko man jël naa sama téléphone woo ko ne ko nawetaan ren mun nañu nawetaan ren moom li ma wax dane man nawetaan ren pour ngeen jouer nawetaan il faut dañuy dajale euh, population bi ñëw vaccin bu pare soo ko jouer nawetaan ba man nee naa ko sax affaire affaire vaccin moom fekkee moom rek ñu dun jouer nawetaan moom moom foofu te ren commune yu wër yëpp joué na nawetaan te vaccin amu fa ma yaakaar ne ñun foofu lañu bëgg jaare lekk suñu xaalis te duñ nangu loolu ñun ñun moom pour yàlla fi ñu taxaw ñu fi taxaw te fa suñoo ànd ci xeex ñuy coow suñu wala ñuy ñàkk man dama nekk nit koo xam ne man damay wax parce que te damaa xam ne moo tax xam nga ko xam moom boo dee wax duñ bëgg yow wax moo tax ñu bëgg a jaar foofu te sama gémmiñ te man sama gémmiñ mënuñu ko tëj man damay wax su fekkee peut-être dama woo téléphone maa ngi suñu kër toog moo ma téléphone ne ma bàyyi sall ma ne ko ah mu ne ma dama lay avertiser ma ne ko pour lan mu ne ma démb final ba dégg naa nga naan àlla moo leex suñu xaalis ma ne ko àlla mu naa ma ne ko man ñaaru ma la ay avertise mu ne ma kon sa pelante booy ba nga xaar ko pelante bi bi mu ñëwee moo kaasu kafe laay amale lijjanti ma ko waale mu pelante bu su fekkee li ma wax moo tax ñu indi pelante nañ duy seen oto boobu noonu ay pelante ba mu fees ñu indi duñ daw duñ daay man duñu ma kenn parce que man li ma laaj ñun ñoo ko moom bàyyi moomu ko yaay moomu ko ñun ñoo ko moom di ah, ñun ñoo ko moom am nañ droit laaj ko am nañ droit laaj ko